merci madame la présidente maa ngi lay nuyu bu baax sama rakk nga sama xarit nga mu ngi lay féliciter encore ci présidence bi nga xam yaa ngi koy def monsieur ministre sport ñu ngi lay nuyu di nuyu suñu sa ñaatungo ministère yi ñu fi nekkal Moustapha ak euh, Sambati di nuyu ñi ngi àndal ñëpp tey nag ñu war a waxtaan ci budget boo xamante ni moom lañ la war a nattal mu war a dox 2024 bis bi toll si 42 milliards crédit d'engagement crédit de paiement 37 milliards 883 634 815 augmentation 14 milliards diggante 2023 ak 2024 bi ñu joxe ministère bi tegal na la si maanaam yokk te bit sa boo xamante ni mi ngi toll si 14 milliards 501 mille 266 201 mille augmentation boobu nag c'est sûr xam naa politique pour récupérer Guédiawaye bokk na si moom bëgg nañ aussi monsieur le ministre ci laaj yi ñu la war a laaj ku si mel ni stade bu Mbàkke nga xam fukki at ak ñaari Macky Sall yi stade bu Mbàkke mënut a àgg lan mooy gàllankoor bi ku ne xam na ni dañuy wax ni sport c'est un transfert compétence d'accord parce que maire yi ñoo ko war a yor mais maire yi amuñu capacité ak koom-koom pour mën a defar stade mënuñu ko président de la République sax pour mu defar ay stade dafay am coopération ak Chine pour ñu mën ko defar stade yi wala mu am coopération ak li nga xamante ne moom mooy waa Turquie pour ñu mën defar stade mais askan baa nag comme président de la République moo mën a am loolu askan baa nag maire yi nga xamante ni amuñu benn yoon boo xamante ni mën nañu am yenn moyens yi ndax maire yu si bari damay faral di wax jànguñu ngelaw li leen yóbbaale rek ñu nekk ay maire kon jàpp naa ni loolu il faut que ngeen xalaat ko loolu moom tax ngeen li nga xam mooy hôpital fi nga xam mooy euh, stade bu Mbacké bëgg nan ngeen jàppale ñu mu àgg ndax ndaw ña fa nekk monsieur le ministre sonn nañ amul fu ñu def entraînement kooku bëgg nañ si taxawaay bu mag monsieur le ministre euh, li sama collègue benn député waxoon am na la fédération de karaté mi ngi nekk maanaam 196 kii la association la 150 yëpp def nañ pétition pour que maanaam ki fi nekk ñu war a démissionner wala ñu war ko dàq bi fi Amadou Ba nekkee wax naa si ak moom mais bi fi muy wax yow dossier amul si est-ce que yow ñëw nga pour régler problème boobu noonu parce que Amadou bi nga xamante ne moo yor intérim bi ñoom déposé na loolu pour que maanaam ñu régler ko mais malheureusement boobu léegi demul lan nga si pare pour def loolu man na xam naa la bu baax parce que bi ma lay xam nekkoo DDI nekkoo LONASE booba man ak yow ak suñu benn xarit euh, saw daas daas Saliou saw ñoo daa ànd ñoo daa añandoo xanaa da ngaa falu rek fàtte ma fuuy fàtte ma mais en tout cas sama xarit nga woon parce que tey bi lay njëkk a nommé DD yi man maa la man maa la informé loolu yow xam nga loolu bi naa tey da lay nommé conseil yi man maa la woon ne la tey Macky Sall da lay nommé yi mais man boo xoolee li may waxee rek nga xam ne ñoom ñëpp am na fu ma jaar ak ñoom boobu lii lépp dara amul parce que awma benn yoon bu ñu am si complexe si ñoom complexe parce que ñoom ci rub àddina lañ yor da day jeex man ci rub danañu gën a suqali sport ba pare gën ko yaatal ndax gis nañu sport ni muy doxee dafa mel dafa xaw a soox football rek daanaka mooy dox te leen yëpp dafa war a dox yéen yi nga yeneen fédération yi la mais muslimin sport aussi bëgg naa ñu rendre hommage ki nga fa remplacé muy euh, ki nga xam mooy Yankhoba Diattara liggéey na liggéey bu rafet mais bul fàttali aussi président de la république maître Abdoulaye Wade moo ñu njëkk a bégal sport ndax coupe du xam ne ñoo qualifié woon te président Macky Sall loolu Macky Sall ngi toog si kaw oto bi mën naa jàpp si porte oto bi Ablaye Wade nekk si kaw ñoom Ablaye Wade moo ñu njëkk a bégal ci sport ñun lépp lañ fay fekk yow doomu Ablaye Wade nga suñu xarit nga Moustapha doomu Ablaye Wade la rakki Macky la suñu xar la réew mi ñun ñoo ko moom mais bu ñu koy liggéey nañ ko liggéey si li nga xamante ne mooy fulla ak fayda bañ a xaj bañ a nekk di par parlo si politique politique bu passé demal liggéey bu liggéey bi passé dellu sa politique boo dee wax rek ni fan ngeen toll ci audit ba fa am ndax ku ne xam na ni sport ministre sport dafa ko doon fa détourné xaalis bu bare bari ci li nga xam mooy fond Covid bi tey bu fekkonte ni tey ji yoon am na ci réew mi ñi nga xam ñoo nekk ci ministre sport ñu détourné xaalis boobu noonu du ñu nekkaat di excédé di fekk li nga xam mooy seen poste yi mais malheureusement yoon amul yoon ñaari côté lay doxee jàpp na Ousmane Sonko jàpp na Cheikh Abdou Bara Dolly jàpp na Bassirou du la jàpp en tout cas yoon mi ngi nii 2024 bu ma jëlee réew mi 2024 dinaa jël société teg ko si yoon képp ku sàcc àllu réew mi dinaa teg si yoon su vraiment jërë ngeen jëf asalaamaaleykum